mbokk mi guddik tamxarit muy tey ci guddi di guddik fukkiil bi mel cee jàng ñaan gi waaye da ngay jiital xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon door cee teg ñaan gii juróom-ñaari yoon mooy bismillahi rahmaani rahim subhaanallahi mil al misaani wa muntaha al ilmi wa mablax rida وعدد النعم وسنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima juróom-ñaar yoon nga koy jàng ñaan gi gannaaw boo jàngee xasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir juróom-ñaar fukki yoon loolu nag bu jant soota tey rek mën nga koo def bu la soobee it nga jàng lixlaas ci guddi gi waaye bu la neexee it mën ngaa nekk ba suba ca yoor yoor nga julli julli gi boo ko defee yeneen yi ci sopp yëpp bëgg ko ko ci def nga def ko ci waaye ñaan gi moom mën nga ko def tey ci guddi